bismillah nu ngi defee ñetti saar yu am solo saar wa amul solo sax amul xaraf wa amul solo amul waxumalaak saar waaye ngeen déglu bu baax ànd ak teew saar woowul dinañ koy wax sóoratul ixlaas waaye am na ñaar fukki tuul te arab yi dañuy wax ne tur yu bari ci benn jëmm day tegtale walóoru jëmm ji wa kasratul asmaa yi tuddilu ala sharfin musamma tur wi ci nekk nag li tax ñu tuddee ku ko mu ngi ci limal nañ ko ñaar fukki tur bi ci jëkk dinañ koy wax ixlaabu danañ ko wax tanzilu danañ ko wax tajrid lu tax ñu di ko wax tajrid li man taallaqa biha tajarada an al axyaari képp koo xam ne langaaw mu nga ci sun borom dina setal sa xol ci ci loo war a juwa loo war a juwaaleel lu mu doon rabia tawhid dinañ ko ko tuddi suratu tawhid li annaha daalatun alayhi خامسها نجا li najaati xaari'ihaa min naar dinañ ko wax suuratu wilaaya li anna man taxallaqa biha axtaawu laahu wilaayata dinañ ko wax nisba ndax li tax ñu di ko wax nisba nisba mooy firi carte d'identité maam yàlla ndax li tax saar bi wàcce dañ ko ne in rëbb lanaa rabbaka euh, melalal nu sa mooy kan saar yu wàcc moo tax ñu faf ko tuddee saaru melalaate wa dinañ koy tuddee ba tey maarifa li ana man fahimaha xarafa allah ku dégg piir piir lixlaas xam yàllaay kan dinañ ko wax suuratu jimaal ndax mu ngi tegtale taaru yàlla bu mag bi mu ci def itisafo bi kamalaati wa tankihi an naqaishi dinañ koy wax mu xaqasha mu ngi firi mu bariatu min ashirk wa nifaq fukk baag benn muawisa dinañ koy wax al muhsina bii firi sange boo ko jàngee yaa ngi ci sange yàlla di nga mucc ci fitnay àddina ak àllaaxira tudde nañ koy suratu samadu ndax baat boobu ci biir saar wa te min baa bi sikri jus in bi kulli ci la bokk dinañ ko tudde achaf ndax addisa wax ne mooy firi mooy firi moy firi fondement yén ay yonent bi mo ne euh ushishati samawati asaba wa arduna saba ala qul wala ahad asmaan yi jurom naar li muy 10 10 ak li muy am am poids fondement modi qul wa la wahad dinañ ko tudé suratu mani'a dafan ndax tamnau fitnat al sokoy jàng dina le musul ci fitnay bamel dinañ ko tuddee muhtadira saaru réunion boo koy jàng malaaka yëpp dañuy teew ci dinañ koy wax munfarida munfiratu li ana shayatina tanfaru inda qiraatiha boo ne qul wallahu ahad rek seytaane bëxër ñett di daw feeg geexul mbaa nga bàyyi du arité dinañ ko tuddee saaru laissez-passer ndax mom la passer la ci safara pour tabi sar bi ba tudde tudd nañ ko xaalisi tawhid tudde nañ ko suratu nur li annaha tanawara al qalb soo tudd nañ ko suratu insan ndax kenn munu la doylu ba mucc ci mom ay ngëneelam nak khat wara def fadil ya ahadith kadira نبينا من أراد أن ينام على فراشه كوك خامن غير صفا كويتر تدرك دس نجد دك مل سلال جان خلو الله لال سلوخن دي جور تدو بين الله تنلو نغرتتكو شان فوا فإسا كان يوم الخيامة والآخرة يا الله دينا لني أي سبرم بدينا لني يقول له رب عز وجل يا أبي sama jaam bi jàngoon téeméeri xul wallaahu yow ca àddina door a nelaw ma déy la tuuti nit ñaa ngi raj raj loo ñu bari xamuñu ko te àjjana fu mu nekkee ko te safara waaye yàlla da déy ne la toppal sa dejoon boo toppal sa dejoon dugg biir àjjana yaminika xalila amin ku ko jàng juróom fukki yoon yàlla dina la baal bàkkaari juróom fukki at ku ko jàng fukk ak benn yàlla dina la sabaxal bil din ci àjjana ku ko jàng ñaar fukki yoon di am ñaari bil din ci àjjana ku ko jàng fanweer yoon am ñetti bil din ci àjjana ba ko nabi wax nag Omar da ko ne ah yaa rasulullah bu dee noonu bil din yi dina bari di mu ko waaw suñ borom moo ëpp képp ku jàng xul walaaw nga jàng ko ci feebar bi nga xam ne ci nga dee bàmmeel duñ la ci fitnaal bàmmeel du la tàpp te balaaxira ay malaaka la tongóob jik yéegi yow siraat ci seeni mbagg ba tàbbal la cëppee laa jëla ku jàng xul wala waxaat sooy dugg sa kër yàlla dina dégaase ci kër ga ak ñàkk dégaaseel la ko suy dëkkandoo yonent bi ne na ku jàng xul wala ahad yàlla barkeel la boo ko jàngee ñaar yoon dina defal barke ci sa ñoñ nga jàng ko ñetti yoon mu defal la barke ci sa ñooñ ak ci yow ak say dëkkandoo soo ko jàngee fukki yoon ak ñaar nag yàlla dina la tabaxal fukki njënd ak ñaar ci àjjana soo ko jàngee téeméeri yoon yàlla dana la baal bàkkaar yi juróom fukki at lu dul deret joo tuur lu dul aleel joo siif soo ko jàngee ñaari téeméer yoon yàlla dana la baal bàkkaari téeméeri at soo ko jàngee junne yoon doo dee mukk balaa ngaa dee foog sa ba tegu sa place ci àjjana nga jàkkaarloog moom door a dee waaw am na benn waay bu ñëw ci ne bi di ko tawat man daal suma wërsëg dafa xat torop te jaboot bu bari ci man lool nabi na ko ma digal la loo xam ne boo ko defee léegi nga bokk ci richage fi te dootoo tawat ak ñàkk mukk mu ne ko lan la yaa rasulallah yi mu ko boo génne tey bay ñëw sooy dugg sa néeg soo fa fekkee kenn nuyu ko soo fa fekkul kenn nuyu ma man nabi wala nga nuyu sa bopp su ko defee nga jàng xul wala waxaat benn yoon képp nag nuyul ki nga fekk ci kër néeg bi walla kër gi jàngal ixlaas benn yoon wala nga nuyu ma man Moustapha jàngal ixlaas benn yoon wala nga nuyu sa bopp xam ngeen ni ngay nuyoo waa ji de defe naa waa ji ci néeg bi wala gaa yi wala ndaw si defe naa da nga koy wax salaamaaleykum boobu amul jaaxle waaye boo ko fa fekkul nag nooy nuyoo sa bopp ah soo ko fa fekkulee nooy nuyoo ne bi السلام عليك يا رسول الله نجي وقت جانغ خول أو بين سكو فكول نجي السلام علينا جانغ خول أو بين واجن أنا دفنا كو أفان إن شمن وسكتور كمان بنيب دما يم دما دي تسوك يا خسرت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قل والله واحد لا أسمى لم يربر من ربر منكم تكاد جاي دك دك كبر بقى ده كبر bien benn waaye dafa mos a wax ne xaalis baaxul ma ne ko nga ne lan mu ne xaalis xaalis a bon ma ne ko xanaa bu bu nekkee ci loxoy ku bon xaalis de bu bonee rek dafa nekk ci loxoy ku bon billaahi li xaalis def alaaji gay soxlawul sax koy woy dafa guddi waaye njool màkk kat jàpp na julli gee toog fa mu jullee gee ba fajar xar di ñaanal kenn nit lenn kal ko kan la Ousmane yàlla yaa la baal Ousmane yàlla yaa na nga baal Ousmane yàlla yàlla nga baal Ousmane ba une heure de matin yàlla yàlla nga baal Ousmane trois heures de matin yàlla yàlla nabi boolewu ci laay laa ilaaha illallaah boolewu ci salaatu ala nabi boolewu ci jàng alxuraan boolewu ci Ababacar boolewu ci Omar boolewu ci Ousmane boolewu ci Aliyin kon Ousmane yàlla yàlla nga baal Ousmane yàlla yàlla nga baal Ousmane ba Bilal ñëw na ko yaa Rasulallah fajar ji xar na يا رسول الله Xaaji Maalik moo wax wax xaas sa jàkkle na bokkale wu ci kenn ku jàkkle haadi Moustapha ku mu jàkkle loo ñeel Ousmane lu mu ko jàkkle doit gën a xam ne mu kararaa bu ñuy takkaraaru takkaraaru kañ gee dafa jàkk xam nga du tax loolu du rakk yu bari ah. du jaas yi ju de waaw kay kay tegi hmm? waaye de looloo wér looloo wér ah ku ne julli géey di la ñaanal ba fajar ku mën loolu bu doon ñemeñ rek Aliou mën bu doon dàq julli Seydina Omar Seydina Seydina bi Bikrin bu doon bari xam-xam Ali yi waaye xaalis la xaalis la dafa am xale bu dangereux te baatu na bi xës kurit daan na diggee rendez-vous ak i noonam wala déwén jéeg wala quelques mois su ko defee day siiw ñu ñaari combat yu ñu nommé pour deuxième semaine soo xamee ne date bi jege na fekkul mu jekk fitna day daal di am du bëgg euh, trahison bi jóge ci moom mu dal ko nag xare bu ñu asira mu réunion yi gaa yi